ñoom en attendant ñu koy jot ah, dañuy ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Ndiawar ah, boroom culture ñu waxtaanee ak ki nga xamante ne mooy madame Vénus Touré ah, di créatrice de la grande marque Vénus Univers mi nga xamante ne première daam sax da koy wër ndax da koy bëgg sañsee ndax la mu féex te moom bu la joxee nga sañsee lu féex mm. danaa la jox lu koy xeeñal neex <laughs> derrière <laughs> parce que ay astuce la c'est-à-dire c'est une chaîne <laughs> sol lu rafet rek doyul. waaw dangay sol lu rafet ba pare xëy lu neex. ba pare di la ëpp. ñoo ànd eh waay ëpp rek. ëpp. te ñoo ëpp xaaral ma ñoo toog ma wóorul directeur. déedéet kat waay ñu PDG de PDG du tardé. ana café yi nee na ana ana ana café yi. Touré bul bul bul Touré yooyu nee nañu jegante rek. très bien Aïcha Diawar. waaw nga ne depuis cinq ans nga tàmbalee métier bi. Ah, ah, ah. c'est vrai que ku la xool xam ne da nga sopp da dooj <laughs> euh, mais lan nga jàpp ne dëgg dëgg dëgg macha allah fa tabaaraka lan nga jàpp ne dëgg dëgg loolu moom moo la inspiré ba nga nekk une créatrice ba am sa yu fi bopp déjà damay remercier Njawar ah moom mi ma invité ci plateau bi mhm. euh, c'est une grande occasion ah ci ma euh, damay jaxase wolof beeg français bi nag. parce que day xaw a compliqué. tuuti euh, Dakar. màggee Dakar euh, Médina. muy Médina la ah, ah, ah, léegi après euh, Médina. foo dëkk euh, après nii foo dëkk nii. maa ngi dëkk Sacré-Cœur. d'accord très jekk ma xam ne foofu nii. ndax la <laughs> ndax dëkk naa Kër Masar de. waaw mais la civilisation man la bële dolo. <laughs> macha allah gis <laughs> nga. yàlla alhamdulilah. donc euh, maa ngi leen di gërëm yéen samay ñi fi nekk. Mhm. Ah, merci. Euh, pour l'invitation merci à la 2STV. gratuit et euh, déjà damay commencer présenter wu. donc euh, je m'appelle Vénus Touré donc artiste. parce que lan moo indi ma dugg ci affaire création. à l'âge de 11 ans dama dem sama papa dafa ma dugal école nationale des arts qui était le conservatoire avant. Mm-hmm. à l'époque à l'époque donc dama doon jouer piano. Mm. di def ay danse classique. jàng musique. super euh, jusqu'à l'âge de 18 ans ma koy booleeg école bi donc dama ko doon def euh, en cours de scolarité xam nañu ko tuddee woon c'était chaque ah. mercredi soir. cours du soir waaw cours soir ah, ci laa doon dem di jàngi yenn ñii waa ñii defi judo man ma dem defi musique ak yooyu. Ah, donc euh, sama dafa amoon lu mu gis ci man peut dafa gisoon ne amoon naa don wala amoon naa affaire artistique. donc mon père est écrivain poète. Euh, je suis née dans une famille artistique ma mère saint la jàngee ñëw donc man dama judd fekk ko muy ñaw. waaw ah. man nag duma ñaw kat dama koy wax hmm. ñawuma <laughs> kii ma fiil. mais damay damay créer waaw. donc euh, dama doon def commerce di jënd di jaay di dem Gambie di jënd di jaay commencé par cinquante mille francs je me rappelle ba ma amee BFM ñu may ma cinquante mille sama yaay parce que moom laa doon topp muy dem di jënd di jaay <laughs> mu gis ko mu neex ma donc ma siy jënd di jaay Euh, di am ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk temps yooyu amuñu woon chance DER am PAMECAS moo amoon. <laughs> alhamdulilah sant yàlla. Ah. donc euh, maa ngi gërëm sa ci gis sa bopp euh, pas encore ah, pour man en ce moment sama fonds propre lay demee. parce que dama commencé ndànk ndànk ndànk. d'accord cinquante mille mu jur cent mille mu jur. cinq cent mille mu jur un million di nga bàyyi ma wax. <laughs> léegi parce que ni ko wax nga ko sax sànq bëggoon naa Vénus mu wax ñu. Uh-huh. en matière d'inspiration yan couleur ak ambiance ñoo lay inspiré. man lépp lu fashion lépp lu lépp lu vif rose jaune ah euh, tout ce qui éclaire. tout ce qui na loo xam ne day tàkk. ah pas comme feu. mais pour man fépp fi nga war a nekk wala fi nga war a jàll rek war nañ la remarqué. ok sa création tamit gis nañ ne Vax bokk na ci li ci gën a teew lu tax nga choisir Vax. parce que c'est un tissu on dit toujours que c'est un tissu qui vient de de Hollande wala de Autriche ah. mais Indonésie mais pour man ñooñu ko liggéey mais duñ ko sol donc ñun ñoo ko mettre en valeur l'africanité parce que dañu bëgg ay dessin dañu bëgg lu xaw a am toujours toujours dessin africain gis nga li loxo la ak yoo xam ne ay fleur mm. wala ay euh, dessin animal ak yooyu donc je me dis que mën nañ jël tissu africain bi di ko def ay yëre moderne classique traditionnel pourquoi pas et que qu'on pour que ni ñuy sol ni ñuy demee di jënd ay yére tubaab. Mhm. yoo xam ne tissu ay tissu la ah, coton la yow tey t bi nga sol chemise bi c'est du coton qu'on a fait en chemise ah, pourquoi pas ne pas prendre le wax. Mhm. le tissu africain le faire en chemise. mais pourquoi indi loolu ñu ko ñu sol. dina ñëw. dina ñëw <laughs> alors Vénus nga vous avez voyager un peu partout ñu bëggoon xam ci sa voyage yooyu ban gis-gis nga am ci wàllum les forces faiblesses de la mode au Sénégal en Afrique. les forces et les faiblesses euh, force bi mooy. on a la chance de pouvoir organiser des ventes privées à l'extérieur donc on dañuy yóbbu suñuy suñuy euh, suñuy uni suñuy luñ nekk suñu suñu création à l'extérieur mm-hmm. di ko jaay di représenter le Sénégal moi je parle de Made in Africa mm-hmm. parce que damay jëndee tissu Côte d'Ivoire di ñëwee Côte d'Ivoire di ñëwee Sénégal mm-hmm. di ko yóbbu extérieur Eh, dañ ciy fier fierté la. Mm-hmm. parce que tey suñu demee ba ay américain di sol suñu yëre. Mm-hmm. wala ñuy jël suñuy saagu vax. ah suñu ay tubaab di ko yóbbu ci ay plage keroog ñu ngi yónni benn photo benn cliente bu kontaan. Mm-hmm. mi ngi yóbbu saagam ba Istanbul parce que dafa demoon foofu di shopping. waaw donc euh, sant yàlla. léegi faiblesse bi mooy nit ñi dañu ne non tissu africain la duñ ci fay lu ci wa luñ ci war a fay. ça doit a ah, pourquoi waru je ne comprends pas cette question. pourquoi tey nit ki mën na costume parce que ce tissu c'est du super 100. et que le wax aujourd'hui il perd pas ce prix. Hmm. pourquoi c'est à nous. ñun hmm. hollandais am tissu ñun mënuñu ko jënd sax di ko ñaw di ko Sénégal parce que duñ le sénégalais mën na jënd basin wam. Hmm. mais le wax vax du ci def cent cent dix vax hollandais ëpp na cent cinquante ce que bi ñuy xaar ci vax bi def ngeen ko ci aussi. ñu ngi koy def ci liggéey bi ci raffine bi raffinage bi. ci mais xoolal lii c'est du euh, Sénégal. fini finition Sénégal waaw Made in Sénégal ay ay ay ay ñoo koy def. jël wax bi. Mhm. collé ko. c'est fait sénégalais bois bi. waaw am na finition moom. donc liggéey finition la nga def ci sa àq pour nit ki ko gisee parce que le quand le client est satisfait il revient. c'est important c'est à nous de faire du bon boulot. très bien waaw yaakaar naa lii moom euh, li ma ci waxaat rek mooy gën ko fësal Made in Africa bi. Hmm. man nag Made in Africa côté musique laay def quoi. <laughs> Euh, yow mais Made Africa côté musique bi ngay def dafa am mode ci bi bu baax tey boo xoolee. artiste artiste yu bëri tey ak musique africaine bi euh, euh, yëg-yëg du ko àdduna bi yëg. n'est-ce pas artistes yu bari buñ ci def seen ay vidéo léegi. Mhm. Euh, ci ay créatrices wala ay créateurs yu mel ni yéen la ñuy dellu. Mhm. ngir ñu defaral leen li nga xamante ne moom mooy direction artistique. di mhm. solo ak yooyu noonu. yaakaar naa am la. vaccin man li ma ci yor suma kër yaakaar naa. lakk du ko jeexal. très bien Ndiawar. ma ko bëggoon laaj rek balaa ngay dellu delluwaat mooy est-ce qu'elle a ci ay. ci ay foire ci ay exposition sur le plan international euh, pour représenter Vénus bi mais Vénus univers mais aussi représenter l'africanité ok euh, j'ai eu à à participer euh, ci benn vente privée mais sinon du ma am occasion bi parce que à part mon sama sama liggéey bi may def Vénus univers bi ma moom damay liggéey je suis professionnel et je suis cadre quelque part dans une société de la place. donc bàyyi rek ma noppi waaw waaw c'est un institut de l'État ah, donc <clears throat> donc su ma sa jëlee samay congé laay mën def yenn yi donc parfois dañ may invité ci ay foire wala yenn vente privée à l'extérieur du ma mën a dem mais man su ma amee occasion su ma jëlee samay congé j'organise des ventes privées man personnellement je l'ai fait aux États-Unis je l'ai fait en France mhm. euh, là je suis invitée normalement dans un mois à Bamako Euh, donc fu ma am occasion mën a dem rek damay yóbbu samay samay création et su ma amee occasion tam solal ay artistes mm-hmm. dañ koy sol woy ci mm-hmm. c'est comme ça moi je me dis avec le digital maintenant même si on se déplace pas mm-hmm. ça se vend ah, <laughs> dem bu baax a baax day dem bu baax am na lu nit ñi tamit di xaw a euh, déplorer ci euh, utilisation wax bi uh-huh. mu di le créateur ak le décorateur dañuy gis décorateur da ngay sol tey ji sa wax ñëw fekk ko ci kër mu nekk njëgënaay wala mu nekk puuf kon tamit bëggoon naa si am. dëgg la en tant que créatrice. Euh, moo tax toujours solution lañ ci war a am. solution biñ ciy am man je me dis ku nekk ni ngay liggéey c'est personnel. Euh, kiy jël tissu bi di ko def ay di ko def ay coussin. oui c'est parce que da ko am mu yomb. da ko am ci marché bi. oui tissu bii ma sol du ma ne amul ci marché bi mais qualité bi am na solo. Euh, décorateur bi tam pourquoi warul jënd tissu bu baax def ko. parce que goût la ak choix. tey mën nga jël sa sa sa wax bu rafet bu cher nga def ko sa coussin wala def ko sa salon. y' a pas de souci c' est comme tu prends un tissu simple. Euh, wala tissu yëre olof basin def ko nappe de table. donc pour ñu gisuñu ci dara bu doon dañu regroupé wu décorateur yi ak euh, créateurs yi mën a wax ne lii nañ ko jël pour tissu création. lii pour nit ñi sol ko. parce que da ngay gis comme li ma la wax rek. c'est vrai mais malheureusement mënoo ko mënoo ko dindi mënoo ko xam mënoo ko soxlaa la doon wax lu tax suñu créateur yi kii yu ñu mm, coopération boobu amul ci ñoom. non am na. parce que am na benn am na ko xam ne créé na benn benn franchement groupement de créateurs et tout. qui est atelier 221. atelier 221 waaw franchement donc contacté woon nañ ma et tout mais malheureusement j' étais pas j' étais pas disponible. Mhm. pour bokk ci vente privée boobu. qui était au Terrou-Bi. mais c' est des jeunes dames des jeunes. des des ay des jeunes créateurs mhm. góor ak jigéen. Mhm. ñoo xam ne c' est des c' est des gens très intelligents très créa créatifs et tout. et ñu ngi fi di créer te di juboo di waxtaan. ah def benn groupe WhatsApp di gisante et tout. man bokk gu ci parce que amaguma jot contacté nañ ma dañuy wax lu ñu xewle dama ciy dem hmm. macha allah et euh, c'est une bonne initiative je félicite encore Touti qui est créatrice comme moi qui est jeune dame mu xewee daf ma contacté wax ma ma ne ko malheureusement je viens d'organiser une vente privée au Radisson parce que chaque six mois damay louer salle Radisson hmm. exposer fa samay création hmm. et parfois j'invite un autre créateur buy def dàll wala sac récemment j'ai invité Maraz qui est un jeune créateur qui est un battant donc ñu bokk liggéey bi jaay et tout très bien merci beaucoup dinañ ci dellu si waat léegi Vénus Touré créatrice de la marque Vénus Univers ñu doon waxtaanee euh, mode ak vax à l'état à pur àndoon ci ak njawar comme on a l'habitude de faire tous les mercredis euh, place